Alaaji euh, euh, non non inspecteur ndoy baan xam nga sama xel ba léegi ma ngi sama kilifa sama xarit. Mhm. sama nijaay Alaaji Njaay loo Njaay yal na yàlla yokk fanam wéral cëram bu baax a baax ngeen di ko retrouver àjjuma ju jot ci kàttanu yàlla midi jàpp une heure ndax xam nga ñeenti at Fatabakalla macha allah. Mhm. c'est une vie ñuy def lii Fatabakalla macha allah loolu moo tax fu ma toog fu may nuyoo sama xel a ci àllaaji àllaaji ndooyu baan bi sax daa jub <laughs> dama jub xëy na ndax damay bëgg a dem non non euh, inspecteur inspecteur du dem màgg <laughs> ah kay mais inspecteur fii inspecteur nga fi nuyool àllaaji inspecteur ndooyu baan <laughs> merci beaucoup tata Degene ñi ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax di nuyu ñëpp ñi nga xam ni saa bu ñu xëyee rek euh, dañuy seetaan di ñu may nopp di ñu déglu bu baax a baax di nuyu équipe bu yeewu leen boobu ñoom Pape Cheikh Diallo ak équipe li ñuy def nag rafet na wax dëgg yàlla li ñuy def neex na rafet na vraiment sénégalais yi bëgg nañ ko. Euh, ku bëgg ak ku bañ. boo xëyee da ngay xëy jàkkaarloo. par la force par la parce que moom affaire yi moom vraiment euh, am na qualité. te te euh, rafet na daal. ñu leen ci sant di leen gërëm bu baax a baax Pape Cheikh ak groupam di nuyu ñëpp Sénégal gépp ak surtout waa bitim réew yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan saa su ne. ñu leen di xamal rek ñun dañuy ñëw rek yi. wax leen li nga xam ne nag mooy ngun-ngun yi ci biir dëkk bi. te yenn saa yi yi dañ koy wax grand place yi di ko wax ci biir kii di ko ngun-ngunee rek waaye du mhm. jóg mukk ci kaw mhm. ñu leen ciy sant di leen a baax ci may nopp gi leen gi ngeen ñi may nopp ak xool gi ngeen ñiy xool ñu leen ciy ziar bu baax a baax ma nuyoo nag te nuyu ma waa dëkk ba mhm. waa Piruk waa waa waa Kër Gallo Kebe ñëpp ñi nga xam ne dëkk ya wër Pire gu rëy ñëpp nga xam ne suñu xëyee ñoom ñëpp dañuy taal ñi amul woon sax wuti nañuy télé ñi di ko capté ci ah, rajo bi ma leen di sant gërëm bu baax a baax a baax mm. ci ci ci seetaan bi ñuy seetaan taamu gi ñu taamu TFM kajoor gépp TFM la ñuy seetaan waaw kajoor Bawol ak Siin ak Saalum ak waa Ngaay Mexek ñëpp. wallaay wallaay Ngaay Mexek sama dëkk. TFM rek Mourad ak Maxoon. Tiwaawan ak Thiès ak ñëpp kay. macha allah macha allah. Hmm. yàgg fi te wér yow tamit Fatou Bakalla macha allah. mbégte gu tamit la ñuy am ah, toog ak sama doom sama xarit Fatou Bakalla macha allah mami enquêteur mami Diop nee naa enquêtrice sax duma ci fekk enquêteur rek. enquêteur kese kese kese kese Ngoné Ndour nag nee na jekki njatu bi ma lay utal nay xaw a briller. waaw mais heureusement nga fàtte ko fa. dama ko fàtte. ngóone mais lii kenn mësul gis xam nga man bi barki dem bi ma xëyee gis ngóone mu taxaw rek laa xamoon ni moom la la doon indil waaye alhamdulilah ba nga ko fa fàttewee gis nga li yàlla lay def tey doo maas kenn <laughs> bisimilah mami. waa euh, euh, asalaamaaleykum jërëjëfa Cheikhul Khadim sama yaakaar yi te ak ëllëg sama maam yàlla na mag neen son Mandela di ci toftal mboolem kilifa diine ak kilifa aaday ci réew mi ndax ñoom ñooy kennu mbaar di leen ñaanal ñu yàgg fi loolu te wér. Ndoy Baan di la nuyu di nuyu sa yaay. Mm-hmm, yaa booy maa ngi lay nuyu di sama papa. wallaay wallaay kontaan ani papa. mu ngi ci jàmm mu baax ana sama maam booy. wallaay mu ngi fa kama na leen yàlla wéral te yokk seen i fan di nuyu waat waa Sénégal gépp ak waa bitim réew comme ni ko Ndoy waxee. di nuyu nag euh, xam nga man dama am famille fële ca campénal ta diggéen loolu neex na fa nañ fa mën ak doy def fa yu bare bare comme ngeen fa demee yéen itam di leen wax ne dinañ dellu si waat ànd ak suñu yaay mu gën a neex di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo Rose Sarr ma leen jiite te sonalu leen mu nuyul ma ña fa nekk ñëpp te di leen masawu coono ta diggéen nag di jaale Yacine Gaye delloo sa xarit ba ndax dafa am gorom bu gaañu ah. te loolu ñun Sénégal gépp la dal ci suñu kaw ndax euh, njaboot bu nekk sénégalais bu nekk bu benn sénégalais génnee ca biti ñu boom ko fa rek am na lu muy def ci yow. dëgg te ndaw la woon. Mamadou Diop Mamadou Diop. lan la ci yaasin. Euh, yaayu goroom. soxna wam yaayam xaritu yaasin la. ba tax fa la nekk fan yëpp démb laa koy soog a yëg. Euh, moo tax ma ne bi nga ko bi nga waxee rek sama xel dem ci comme ni nga koy waxee. Mhm. xëy na demin mooy metti waaye ku nekk ak sa bës. kon nañ ko ñaanal xëy na nag dem bàyyi fi soxna ak njaboot metti na. te suñu kaw la dal ñun Sénégal gépp ñuy ñaan suñu doom yi nekk bitim réew nañ leen sàmm te aar leen ndax njaboot lañ. fii la ñu dëkk ci réew mi di ci toftal nag di nuyu sama rakki bopp ji nga xam ne dafa sës ci man te rëkkuma benn yoon taa digge ñu bokk ndey ak baay mais ñëpp dañu yaakaar ne ay seex lañ ma nga ci Amérique aayul nag lu mu liggéey man la ko yónni xam nga loolu neex na ci xool di la ziyaaraat yaa booy di la wax ne sañse bi macha allah Seydina Muhammad sallallahu alayhi euh, <laughs> euh, mami dañuy àndaat rek ziyaaraat kilifa diine yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew mi mhm. di sàkku ci ñoom ñaan waaye delluwaat di leen ñaanal ñoom kilifa diine yi fu ñu mën a ne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 nee naa leen béréb yooyu jombul kenn nañ ci bàyyi xel ñu jub lool lool lool loolu ña nga fa ñu safaanoo nga fa waaye ànd ak lu ci mën a ne sañ sañal ñu nag ñaan buur bi nga xam ne moom rek mooy tege natt du kenn yal na leen ko teggil ci anam bu gën a gaaw ba ngeen dellu ci seen biir njaboot te yàlla bu kenn manqué yàlla bu kenn manqué li ci barke alquran al saa yu ñu toogee rek dinañ yëkkati baatu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun liñ ci namm rek mooy jaale képp koo xam ne jamono jii ñu toog waxtaan yaa ngi ci tiis yaa ngi ci naqar waaye nangu dogalu suñu borom bi ndax àddina du kër Mamadou Diop boobu nga xam ne ndeysaan dañ ko boom bitim réew mu doon maan nekk ca États-Unis suñu borom ba def lii ñu ngi koy jaale diaspora bi yëpp diaspora bi yëpp Sénégal bi yëpp fatabakalla macha allah rawatina Yacine gàdduloo mi nga xam ne suñu lépp la fatabakalla macha allah xam ngeen ni nag émission bi di wareef ay thème la mu mel ni daanaka ñaari ayu bës suba ci kàttanu yàlla lañ koy tëj ñu ngi yëkkati thème boo xam ne yàkkamtewu leen sax ñu tëj ko ndax dafa yéeme te lëmbee nag Sénégal dañu ne maraboutage maraboutage nag su ko nasaraan waxee li nga xamante ne ñun foofu lañ koy tibbee mooy liggéey liggéeyante yu bon xar fa fuufa yu bon yi ñuy defante ci réew mi toog rek bokk meen bokk gaño bokk place ah wala bokk koñ wala bokk bokk askan wala bokk foo loo leen mën a bokk rek ndax bokk ma nga jógee ci aadama aw nga xëy rek ne kii du dem du dem bokk li ngeen di liggéey bokk di footballandoo bokk di bëreendoo bokk di basketandoo ah fa tabakala macha allah loolu rek nga xëy rek nga ne du dem du dem du dem nga nekk mbokkam nga xamante ne lu mu dem liggéey indi ci seen askan nga ne kii daal doomu diw ji daal ginnaaw sama doom réussirul sa doomu diw du fa réussir mhm. xëy suba rek yàq doomu jàmbur yàq doomu jàmbur yaa xam lan nga ca kër ga yaa xam lan nga ca askan ba demoo waaye sa doomu wujju pecconga bii du dem demoo waaye sa doomu diw bii du dem demoo demoo demoo demoo xale yoo xam ne fakkatal leen yàq leen tas seen yaakaaru njaboot tas seen yaakaaru askan tas seen yaakaar ñoom mel ni bésu penc amul moo tax ñu ne yow mal xiyaam yuuxu dina jubee fu ñu ko foogewul woon kon dañuy àndaat ak yéen ubbil leen téléphone yi ci numéro yi ngeen xam ne miin ngeen ko di 88 628 22 22 sooy wootee Sénégal 88 628 22 22 sooy wootee bitim réew nga def 00221 33 841 22 99 00 221 33 841 22 99 xanaa mami dañuy ñaan yàlla. <laughs> door ak bisimilah rahmaani rahiim. inspecteur ñuy ñaan buur bi yegg yeggaleeg alhamdulilah rabbil aalamiina te ñu xam ne lu fi jub rek suñu borom bee ko jubal. waaye lu mel ni lu ñagas rek. <laughs> xam leen ni ne ay doomu aadama lañu ñu mëtuñu. <laughs> fa tabaarakalla macha allah waaye suñu yéene rek mooy ngeen xamal ñu. ñu xamal leen fa tabaarakalla macha allah kon inspecteur foo génne tey. waaw tata dégg ngeen nuyoo bi rafet na sell na. waaye man moom damay damay xëy rek nekk xëy rek. waaw li Youssou naan da ngay. da ngay xëy rek nekk. waaw waaw xëy rek. dóor mu daal waaw inspecteur nga tey gisatu ne inspecteur voilà gis nga gis nga sëñ Talla Degene da ngay ni man militaire laa woon xam naa ko sax de waaw xam naa ko non da nga koy da nga koy fàtte te yaa Casamance sa guerre ba man ah, xam naa sa lépp di dañoo yàgg yow tam maak yow rajo ah, ah, la ñu koy nuyu ñu patron <laughs> boobu lépp moo ma nag vraiment ñu koy sant gërëm mais Talla Degene toujours man la hmm. femme yàq femme ci biir kër yi la nekk hmm. homme yàq femme hmm. homme yàq femme y'a beaucoup de femmes yoo xam ni dañoo sëy ba tas mm. taxaw ni seen jëkkër may ma sama baat mm. jëkkër ji di bañ mm. may ma sama baat jëkkër ji bañ nga yóbbu ko tribunal ba tribunal tas sëy ba yow ku góor ki nga taxaw sax jabar jooju tëkk ko ni ko dootoo sëyati aka fi bëri du jeex hey laal nga paquet bu dootoo sëyati am naa ci sama xarit boo xam ni maa ngi mami mii def wax def nañ ci waxtaan wu yaatu femme bi dafa jëkkër ji da ko liggéey carrément yóbbu ko ci bàmmeelu liir suul ko fa affaire ba réer ko ndaw si di dem ak ñëw di tukkee ka dem ak ñëw nekk ci ay business am femme bu am euh, teraanga moo ñëw ba ci man gaare otom toog ñu waxtaan mu expliquer ma lépp man quoi léegi loolu moom lu mu la wax mu ni ma dafa dem ba mu neex ko mu ni ma moo jëkkër ji woo ko téléphone ba jëkkër ji feebaree ba nekk ci sukaraat la ko woo téléphone ni ko baal ma àq mun ko lan laa lay baale àq mun ko dama laa def loo xam ne soo ma baalul man su ma dee sawara laa jëm te maa ngi nii te ndaw sa ndaw sa dañ koo liggéey liggéey boo xam ne jëkkër ju mu am mhm. six mois sëy ba tas mhm. te waaw non dañu am ay problème rek eh? xam nga problème mënul ñàkk. ci sa waaye ki nga wu de waaw ah nga baal ma ñëw nu mu mujjee nu mu mujjee moom nu mu mujjee moom dañu dem mu woo ko ni ko baal ma àq. mën ko di ma wax nag. yow nii nga mel xam naa sa comportement. doo baaloo nit àq parce que da nga rëy. lu tax nga naan ma baal ma àq soo ma ko waxul duma la baal ci téléphone bi ndaw saa ngi bitim réew waajaa ngi fii mun ko il faut nga ñëw parce que dama laa liggéeyoon ba ñuy tas bëggum doylu moon ci yow dama laa liggéeyoon. Mhm. suul ko ci bàmmeelu liir. moo tax fi mu nii li ngay tas yëpp maa ngi ko yëg heure boo amee jëkkër yëg naa ko heure boo tasee yëg naa ko ndaw si contené sept jëkkër. sett jëkkër ay jëkkër yu am maanaa jëkkër ju ñëw ñëwaat ñëwaat ba muy juróom benn weer da ngay jékki-jékki daw mhm. kenn dootu gis janq bee jékki-jékki dañ ko tata papa de dem na jël nay bagaasam ba dem mhm. Eh. mu ne ko nag dama laa liggéey yóbbu ko ci armeelu yoof yi la ko wax ci bàmmeelu liir laa ko suul xamatuma fu ma ko suul wër naa ko ba sonn hmm. gisatuma ko ndaw sa ba tey jii ma lay wax nii nii nii nii nii nii munul am jëkkër kon waaja waaja munu munu ko dindi te dee munu ko waaja dee na salaamun xawla film nii waaja dee waaja waay waaji dee na ndaw si di heure bu amee jëkkër biñ defee biñ fi defee émi maa ngi moom biñ fi defee émission bi ba pare. Mhm. amaat na fi jëkkër jëkkër ja dem na. mais xam nga euh, enquêteur. Mhm. tey euh, inspecteur indi na paquet bu rëy. dëgg la parce que jigéen ñi ñu ñi comme yàlla nattoo nañu. Mhm. sax ñuy toog ak soxna yi. dëgg ci gis kenn koo xamante ne jëkkër ji nii mu tëkkoon ni noonu lay tëkkoo. yow yow la yow bu rafet. Mm-hmm. xëy suba xoñoñal la mm-hmm. nga toog ba sa muñukaay jeex mm-hmm. nga xam ne sëy dagan na fase dagan na doonte kenn bëgg ko ku sañoon fa ngay sëy fa ngay fa ngay fa ngay fa ngay jënd bàmbeelu jàmm ak salaam nga xëy suba waa ji xëy suba bala ba pare dem def la fenn foo xam ne tiim la carrément. dala koy wax carrément. Mhm. ne la dootoo sëy. Mhm. Mhm. dala koy wax. yow nga gis ci ñoo xamante ne bañ leen ko waxee ñu nga toll ndeysaan yoruñu sax 30 ans. ba léegi ñu nga toll ay 50 ans jëm kaw duñu du duñu sëy. léegi nag lii suñu tollee ci euh, thème bu dey nii ubbi paquet bu day nii defe naa ne ne ñi ci concerné ñi ñuy déglu. ak ñi ñuy seetaan defe naa ne enquêteur bëri na. yaa booy euh, xam nga ndooy léeg-léeg ñu laale maa ngi moom ba mu saf. Hmm. mais day génn fu neex. gis nga fi mu génn nii moom benn rek la ci fàttaliku mm. xaaral ma fàttaliku beneen bu gën a neex boo xam ne moo ko doxoon bu gën a garaaw maire bi gis naa ko barki démb rek xam nga yaa ne gis naa ko bët lay laaj waaw waaw euh, sa tata ne la barki démb mm. mm-hmm. moom tamit même problème bi ndooy wax nii mm. moom la am moom yemul ci moom rek de dañ ko ci boole moom ak doomam ku ko def euh, bu njëkk bi jëkkëram ji mu doon sëyal moo ko ko def mm-hmm. bi mu taseek moom mm-hmm. daf ko yàq xam nga ku dem nga nekk ak moom mu dem ba won la ne damaa doyal ci yow dem takk xale bu ndaw indi ko ñu ne ko dangay tojal sa jabar ndax dafa bari pexe tojal bi mooy lan mooy ci biir néeg bi mu doon sëyeeg soxnaam moom la indi jabar ja mu ñëw sëy si fa fa lañ lekkee seen lépp ndax ne dañ koy tojal mhm. xam kon kooku ñoo ko génne mu génn jëkkër jee ko liggéey dij ko mhm. fan lañ mu ak moom jabar jooju jëkkër ji takkoon bi mu demee ba toog ba jëkkër ji jël ne moom li mu doon liggéey dafa réyoon ci réew mi ak bitim réew mu ne dafa bëgg doomam doon na ko mais comme doom jëm amoon ak mère bi moom la mu yéene ko ko ba lijjantil ko invitation ak lépp xale bi suba gi mu waree xëy dem ambassade pour jëli visa ci la ndaw si ne waaj yomb na waaye tukkee jafe ñaareel bi mu takk ba nëgëni si xale bi xamul fu yoonu ambassade féete taa déggan yaay jaa nga ca boole toog na sëyut doom jaa ngi ci mbedd mi di ramasse ay carton di jaay pour mën a am lum naanee day tëdd ba guddi defar na këram ba këram macha allah doomam ñëw jël xeer toj këram yépp mi ngi may déglu famille yépp ak may déglu ndoy baan mi xam ne ne tànn doom ji xel mi dañoo yóbbu xelum doom ji fi mu ci mbedd mi lay fanaan taa dégg na këram ba veer yéeg lépp ne nañu doom ji ñëw jëli xeeram toj kër gi ba kër gi lépp maase dafa dem ba munta bañ a dem màkk bi muy dem màkk dafa tëj këram denkaane ko te lool ku ko teg boroom këram bi mu doon sëyal ku ko teg wujjam bi mu doon wujjeel. mais lu yéeme nañ dem seetaan benn élément. femme yàq femme. femme yàq femme homme yàq neexu la dindi. waaw homme yàq femme homme yàq femme. am mhm. na sax homme yàq homme. Mhm. homme yàq homme ci waaw. waaw waaw les gens n'aiment pas les gens uh-huh. loolu la ñàkk di wax loolu la moom yaa wax nañ dem ànd uh-huh. seetaan élément léegi léegi léegi nee leen yow mal xiyaam yuuxu dina jubee fu ñu dina tàng foofu day gën a takka naa day gën a ndax yàlla du gis borom buus di wax ak borom conteneur waaw waaw ah ah yàlla du gis borom conteneur 40 pieds ah di wax ak borom buus ñetti dërëm toot nañ dem ànd seetaan fa tabaakallah masha allah dellu si léegi ubbil leen téléphone la ndax émission bi yéen a ko moom waaw maa ko dañ doon génn. léegi kooku gëm gëm gëmewul woon génn bi daal. léegi da doon dem si ay sëriñ di ñaan lu pour beneen góor bu ma xool daal naa yem ci moom dong. affaire yooyu nag fu toog daal naa koy xalaat. est que dëgg la foo noo def moom ko. parce que am na benn jour moom ci benn sëriñ mu koy def ma xam ko. mu def lan lu wax sëriñ pour na def loo xamante ne daf may takk daal. fekk tey maa ngi toog. waaw léegi sëriñ bi ni ko la. sëriñ bi ne ko na ko affaire mu jox ko benn affaire boo xam ne ñu ñaar ñoo koy sangoo. waaw lu tax nga sangoo ko. parce que dama ko bëggoon. danga ko bëggoon. Ah. waaw waaw loolu lu tax sëyu leen bële yéen a ngi. ah af non non ma war. moom moo la war. Mhm. ok waa ji ci boppam moo la war. waaw te da nga ko bëggoon est-ce que gàllaaj gi dafa toj xanaa. mun na am parce que ñëpp fu mu mun ci dem même sama yaay dem na si benn sëriñ ñu ne ko génn bi gàllaaj moo ci laloon xale bu góor dafa dem liggéey ma. Ah. pour ma koy topp daa man tey ma ko wala mbëggeel boobu du teyal daal. Mhm. comprendre nga waaw. Mhm. parce que man sama yaay dafa bañoon diggante bi bëgg. nee na waaj na ne ma am na sama benn pa sëriñ boo xamante ne sama yaay dafay dem itu ak sama sœur yi kooku su ma demee dina def loo xamante ne maa ngi dinañ sëy te kenn du ci mun dara mm-hmm. waaw nga accepté waaw ndax da nga ko bëggoon waaw mu noppiloo sa yaay noppiloo ñëpp waaw ok kon moo la yóbbu ba ci sëriñ bi liggéey la jox la nga sangu te bi ngeen bi ngeen bi ngeen dem ci sëriñ bi bi ngeen di ànd ci sëriñ fekk na moom daf la bëggoon yow da nga ko bëggoon waaw bëggoon nga ko jar kon jarul woon muy dem ci sëriñ na bëgg amul woon foofu sax parce que nee neen daf dafa mosoon doxaan au fait ma bañ ah, ah. lii xam naa lu lu bañ ma bañ mu naan maa nekk premier jigéen boo xam ne maa ko mos a rejeté te moom jigéen mos ko rejeté ah. xam naa loolu moo tax mu jaarale ko foofu te ak yaayam yëpp mais mais xam nga sàcc bi mu koy def yaa ngi toog yaa ak yàgg na di def. mais benn yoon bi laa fekkee. waaw ah. léegi ba ñu bàyyante nag si laa xam vérité bi yëpp. mais affaire bi toj moo tax ñu bàyyante. mais yow est-ce que mos nga yóbbu yow góor ci sëriñ. jamais de jamais jaralu ma ko. mais yéen jigéen di ngeen toog di ko waxtaanee yéen xale. waaw dañ koy waxtaanee mais ne sëriñ moo toj. lu naturel moo gën daal. mais yéen doo leen yóbbu xale yu góor yi seen morom yi ci sëriñ da ngeen yóbbu paa yi ngeen yóbbu ci sëriñ. paa man aw ma pour lekk xaalisu paa bi dama am benn mbaraanu paa dama bëgg nga jàppal ma ko lu mu yor jox ma ko day am wala du am seen waxtaan yi. waaw loolu moom day am tout le temps suñuy waxtaan et tout man moom dafa. ko yee ko mu dëgg nga xam ne loo ko laaj da koy jox. Mhm. mais sëñ bi da naan nga indi xaalis paa bi parce que si xaalis lay gën a jàpp. lay gën a ah. gaaw loolu lañ lay wax. Ah. waaw su ko defee nga dem ba fexe paa bi may la benn 10 nga dem fay ci sëriñ bi. waaw affaire nga mu jox lay affaire nga takk ko sa ndigg nga xam ne loo soxla. Ah. wala kànnaar loo soxla affaire waajur. kànnaar paa bi waaw. loo soxla loo soxla ah. la koy jox. Mhm. waaw mais est-ce que gis nga mus nga gis sa benn xarit wala yow nga def ko mu jàpp. déedéet sama xarit def na ko ma gis naa ko ni jàpp na. Ah. waaw firme ni mi ngi koy jox. lu bëri sax. dangay wax rek. billaahi lu bëri. kii koy liggéey kii paa bi. xale bu jigéen bi saa yu soxlaa bu yeewee day ubbi kànnaar bi tudd tëj waa ji moo koy woo ne ko su waxuma loo soxla billaahi wallaahi taala mu jox ko ko. yéenay ànd. mais benn jour moom ànd nañ nii ma gis ko. mais xale bu jigéen bi du joxee dara moom. déedéet ba tey mu ngi ànd ak ndawam. yomb na de. ak paa bi xamul si dara mais bu yàgg yàgg bu tojee après mooy loolu. sëriñ bi ko defoon kànnaab cinquante mille la ko fay. cinquante mille. Mhm. te sëriñ baa fii ci biir dëkk. Mhm. xale bu ndaw. sëriñ bi <laughs> bi def yooyu. xale bu ndaw waaw. ñooñu sax kaa yooyu dañoo bari ci dëkk bi. sëriñ yi def yooyu. ay ay fas. Mhm. ay kànnaa. Mhm. yooyu la ñuy wax du pour sëy du pour dara mais pour roppat ko rek. ba mu jeex doo ko sax bëgg. ok te fa paa muy roppat. borom jabar ay jabar la yor. kooku yor na yor ñetti jabar kay doom yi mag xale bu jigéen bi. Mhm. waaw. jërëjëf kon mbokku téléspectateurs yi ñoo ànd nag seetaan témoignage bi xam nga tubaab lu mu bëggee waxoon naa la ko fii ndoy baan xam nga lu mu bëgg maa dund ak maa fekkee waaye nag li ma gën a yéem man li ma gën a yéem euh, au delà ci témoignage bi mooy léegi xale yi dañu ñeme sëriñ xale yi ñeme nañu sëriñ ñeme sëriñ boo xamante ne mm-hmm. xam nga xale bu juddoogul ah toj euh, li ñuy naan tojogoo ci xottu nen xëy su ma jël fukki junni di ko def ci jëkkëru jàmb boo xam ne man sax euh, nu mu cautionné wu ma sa jëkkëru jàmbur ba nga xam ne moom moo fay bàyyi ay jéegam di dem ci xale mhm. waaye xale ba tamit yor kànnaam foo xamante ne su ko kiiwee tëj ko moom daal doy na waar doy na waar doy na waar balaa ñuy dellu siwaat ci jéeg ji mhm. ci li nga xam ne moom moom la wax ñi nga xam ne tata dëggeen loolu ci seen yaay yi lañ koy gisee mhm. aw la seen tante yi ci kër yi xale bu jigéen bi ci boppam day day juddu gis yaayam bëgg ay ay def ci suufu lal ak def affaire yooyu foofu la koy gisee paa yu bari ñi ngi am ay gelu xale yu ndaw xal di xale yi di leen roppat di leen may ay cent mille deux cent mille paa yi ñu ko de dañoo war a gis nga borom kër dafa war a bàyyi di lekk kër jàmbur soo amee jabar ami doom amul njaboot day lekki sa kër góor day lekki këram wala kër yaayam soo ko dul def hmm. dinañ la jàpp ci jus lañ ko la koy defal jus bisaab yi boisson yi wala wala añ bi waaye jël benn cent mille francs jox ko ay xale yu jigéen ne leen togg leen mbaxal maa ngi ñëw ngoon mbaxal ma ñu jàpp ko sunguf ko te nag surtout doo fa te suñ la toggalee mbaxal sa kër ngay kaas nga nga ngay ngay kaas tey lekk ay dëxi naki mbaxal ak lu ne ci kër ci ci kër kër jàmbur foofu leen leen di jàppee comprendre nga euh, gis nga euh, gars yi nee naa souvent mu ko ci rajo bi man leen leen nangu di dem terrain xale yu jigéen yi mm-hmm. mm-hmm. day leen dem seen terrain su mm-hmm. fekkee mu mënoo bañ a def del dem del dem sa terrain benn terrain baaxu ca benn terrain baaxu mënoo ko bañ a def del dem sa terrain mën na mën dañ ko bañ a def kay ku ci bawul la dem terrain xale yi nii rek lan lay def dëgg la piégé la def la ci yow ay affaire te dem sa terrain sax taxulaa mucc uh-huh. am na ay fas yu ñuy takk seen digg yi ah, xale ndaw yi dañuy takki fas uh-huh. dañuy takk ay fas wala ñu ko fii loo wax ba jàpp seen loxo bii ba nuyu wala nga wax ba jàpp kàpp seen digg waaw c'est fini ah waaye la xam nga lan la xam bi waaw xam nga xale yi tamit ñeme nañu sëriñ waaye tamit yor sab jeeg uh-huh. xam nga euh, maanaam yëf bi euh, nañ ma jéggal bu baax waaye làmb golo la ndax yoog say jeeg dem jox xale ba frère boo xamante ne mu ñëw ngay làmbi ndigg mhm. ak di tàppi ndigg ak di mhm. tàpp téye loxo loola mhm. ca dal yowa xale yi ci jëm boppam tamit li nga wax ñun ñuy jigéen ñi xam nañu ko sa ndey am na leen loo xamante ne soo ko defee da koo fekk ca fa nga yéewu waaye nag kaay ma yëgal la leen xale yi tamit seen xaritoo yi ñuy def léeg-léeg nga gis jikko yoo xamante ne ci ñoom yoo xamante ne seen ndey xamu ko def ñu ko ci dafa am kenn koo xamante ne daf ma mës a wax ñuy waxtaan mu ne ma gis nga yow dinaa la wax mu ne sama doom jikkoom dara neexuma ci. dëgg la am na. mu ne ma sama doom jikkoom dara neexum mhm. mu ne ma xale bi ñeme na sëriñ bii xeetu ñeme ah. sëriñ mu ne ko mu ne ma man xale bi ci jëmoom jikkoom mu ne ma keneen mhm. beneen beneen beneen kii mu ne ma jikkooy xale bee moo ma neex mu ne mhm. waaye sama doom bii génnee sama biir jikkoom dara neexum donc dafa sincère moo ma ko wax jële ko ci ligne bi man sincère la allo allo oui asalaamualeykum maaleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay ziar noo tudd ak fooy woote uh, man Paris lay woote ani waa Paris mbaa ñëpp a ngi si jàmm ñu ngi ci jàmm. bismillah loo xam ci li ñuy waxtaane tey. bon seen waxtaan bi bon am na sens mais le problème que euh, moi je pense que vous en train de faire la publicité des des marabouts. Mm-hmm. bien des faux marabouts parce que loolu moom su amoon man dama def euh, bon euh, limu nit wala bon kii amoon. Mm-hmm. da ngay gis sëriñ bi dem banque ah. après bon il va ramasser de mhm. sëñ bi dégguñu la bu baax doo xaw a sori télé bi wala nga wàññi ko. ma ne loolu bu bu amoon. waaw. Serigne euh, yo bon les marabouts là que vous vous parlez là. dans une banque. bon il va marabouter tout le monde et l'argent. waaw ah, mais loolu nit ñaa ngi koy def ñi koy def ah. Mm-hmm. non non parce que am na ñenn ñoo xam ne. dañ koy def et puis euh, autre chose ko déglu wax ni am na solo. parce que man gisuma loolu presque ci Afrique rek euh, la am quoi cest dire Sénégal Guinée Bissau bon euh, voilà suñu suur région bi quoi. dëgg la. waaw. Mm-hmm. mais yooyu moom man bon. j'aurais préféré que ñooñu ñu def pour euh, qu'ils des choses pour que le Sénégal. décolle. rapporte la coupe du monde. Mmh. <laughs> le Sénégal rapporte la coupe du monde ou la coupe d'Afrique des nations ou bien quelque chose d'important. Mhm. parce qu'il y a des marabouts qui peuvent euh, voilà tout faire. ah. dëgg la. mais là maintenant les gens qui sont les faibles d'esprit là ils vont voilà ils vont croire à ces gens là. moi c'est des choses yoo xam ni bon. yàlla rek a mën dans ton esprit bon tu toujours croire à ça. Uh-huh. or que jullit day nekk jullit rek ou bien soit on est musulman ou on l'est pas. dëgg soit on est musulman ou on l'est uh-huh. le fait de croire à ce truc-là ça voilà carrément da ngay génne sa voilà et puis ça retarde c'est des choses qui retardent les Africains. mm retard la retard mental la. vraiment c' un retard je ne sais même pas comment le qualifier. merci merci la publicité beaucoup ñu ngi lay remercier. merci encore une fois. bu wax lu su gars yi mënoon. Mhm. Sénégal football bi danañ jël. Mhm. équipe nationale Sénégal ay ay aay la am. Mhm. mais am na ñeneen ñoo xam ne duñu sëriñu équipe bi. Mm. te tooge fee. Mm. di yàq. Mm. parce que dafa am ay nit yoo xam ni. équipe bi di gagné arrangé wu leen. Mm-hmm. Sénégal bi fi demee ñooñu ay sénégalais lañu. xam ne ñoo xam ne équipe bi di gagné arrangé parce que ña nekk ca fédération ba. wala ña nekk ci équipe ba. neexuñu leen jub jub jubóowuñu. Mm-hmm. xëccoo boobu mooy tax ñuy xeexante. Sénégal bi mu fi demee Coupe d'Afrique ñu dóor ko ñetti 2-1 ya. man sama bopp chaque match su commencé. Hmm. ab jarbaatu bu xaaba damay woo. Hmm. ni ma diw ak diw ñëw nañ fi. Hmm. Sénégal dañ koy dóor 2-1. mami mii. bokk na ci ñi ma doon woo. naan ko match bi de mi ngi bëgg commencé kama daan woo wooti na ma. nee na Sénégal dañ koy dóor 2-1. ay sénégalais ko def ay sénégalais wax woo naa ay journalistes. bàyyi ci ligne bi bësal foofu. dañ fay jëlaat. Ah. dañ fay jëlaat dina ci ligne du dem du dem. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw na ngeen def waay. ku baax ñu ngi sant bu baax. mami jël ko jël ko. waaw man maa ngi tudd Samba Diine di woote Gabon ci Gamba. di wootee. Gabon. Gamba Gamba ci Gabon ci Gabon. ah ani Gabon sëñ bu baax bi. waaw ñu ngi nii di jàmm waay. waaw ñu ngi leen di ziar yow rek la déglu. waaw dañoo kontaan ci ci ngeen def seen seen waxtaan yi seen waxtaan yëpp ñu ngi ah, leen seeraan di di si di si bëgg. jërëjëf. di tam di kontaan mais man euh, bon. barke dem ak dem yëpp laa bëggoon waate mais mujj moom mujj moom dugg quoi. dëgg la dëgg la liñ bay xat. man bon c'est affaire lamb ji man laa bëggoon wax lamb ji moom man nu ma ko gisee lamb ji bon lamb ji euh, bon du ci nekk. bon bon buñ ko mënoon arrêté sax en ligne buñ mënoon arrêté moo gën quoi parce que lamb ji bon yéen yéen taxawal ngeen ko du ci nekk. lu bon dafa bari. lamb ji man xam ne léegi lamb ji léegi fuñ ko yóbbu fuñ fuñ fuñ fuñ ko yóbbu bon dañ koo yàq. dëgg la melul woon nii. Mm-hmm. et puis bon man man moom man man moom man moom lu may ñaan lu may ñaan mooy arène. Mm-hmm. arène nationale bu ñu bëgg bu ñu bëgg bu ñu mm-hmm. ah, yàlla bu mu am. Ah, lu tax loolu. non yàlla bu ma parce que xam nga xam nga loolu mooy léegi léegi xam ngeen am na ji lu si bon lu si nekk léegi léegi au lieu ah, au lieu ñu bàyyi ko mais léegi mais léegi dañ dañ dañ leen ay de fu ngeen di defee li boobu yooyu yëpp léegi fii ngeen koy defee. Mhm. bàyyi ko moo gën. mais est-ce que arène bi du dimbali xale yi nga xam ne ñooy jàng ci école yi te fay dem di fa entraîner tamit. arène bi arène bi mënuñoo dimbali arène bi bu dee et puis arène bi loolu loolu taxul woon Macky Sall dem club du Paris. Mhm. Macky Sall taxul woon dem club du Paris di jëlee xaalis ñëw di tabax ay arène. Mhm. am na des yi. te mbéy baa foofu. napp baa ngi foofu. Mhm. ñun man man mi wax suñu man mi wax ak yow suñu dëkk ah ëpp na ah nañ deux mille cinq cent trois mille trois mille habitants. ba léegi amuñ courant amuñ ndox bu baax amuñ ay. amuñ fu ñuy fajoo amuñ dara. jërëjëf jërëjëf jërëjëf bu baax. ñu ngi nuyu sénégalais yi Gabon yëpp. ci sa mhm. tur. Mhm. dégg nga. kontaan nañu waa ji waxaat na ay dem ci banque yi wut xaalis. Hmm. déedéet danga balaa muy dem ci banque. ci équipe nationale yi. waaw waaw équipe yi ci boppam. Hmm. si Sénégal. Hmm. le sénégalais ci boppam li li li miyaa wax sénégalais yi ci boppam ñooy yàqal seen morom sénégalais mhm. dafa am ñoo xam ne équipe nationale di gagné arrangé wu leen mm. ñooy dem xon équipe bi ba équipe bi du gagné mm. ñi koy def xam nañ seen bopp ñu ngi fii ci dëkk bi mhm. suñu jógee ñooy toog ci télé ak yi wax naan dañoo bëgg Sénégal bëgguñu Sénégal ku ci nekk ci poste ñu jëlee ca poste ci ba nga ne ñu jëlee la fa nga yàqal société ba wala nga yàqal poste ba looloo daal équipe mais inspecteur xam nga tamit foofu damay taxaw tuuti est-ce que xoo bu àndut ak entraînement dina jàpp xam nga lu tax mhm. da ngay gis par exemple Sénégal jóge fii mhm. Sénégal jóge fii waaw maanaam man aayuma ci football euh, kii yi waaye jàpp naa ay Real ay Barça parce que jàpp naa ne fa la ay Ballon d'Or ak yooyu nekk. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. ay genre équipe yooyu. Mhm. mais ñooñu ci jëm boppam. gis nga dañu sacraliser li nga xamante ne daane nañ ma baal sax ci terme bi. daane ko football bi. di ko jàng ut ci ay xarañ. xam nga dañ toll ci jamono joo xamante ne jamono yu xarañ la. léegi nag su fekkente ne ne que yow da ngay xa da ngay naan lii. dañ koy jàng xam ne un plus un égale deux. nga xam ne système bi soo ko tegee kii nekk ci kii. ça veut dire genre probabilité yooyu yëpp nga projeté ko. Mhm. nga xam ne ñoo xam ne seen vie dañ ko ci def. mais loolu soo ko defee ala kulli xaal da ngay gañ. Ah, mais taxawal rek taxawal taxawal inspecteur xam nga mhm. gis nga Sénégal. da ngay gis xale boo xamante ne fu mu nekk nii. entrée en sixième rek lay def. jàngul ma ngay jàpp ne moom soxlawul muy jàng na jël big bi rek. ñu ñaanal ko ci xam ba nga xam ne le sénégalais est devenu fainéant. Mhm. le sénégalais defatul dara pour ñoom. li am solo rek mooy bi xale ko daf maa ooy bitim réew. waaw bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. soxna Mami sëriñ bu baax bi. maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax. ku wax loolu waaye. man la Mbargu Diop di wootee Italie soxna Degen Chimère maa ngi lay ziar bu baax a baax. Diop Diop sëriñ Mbargu Diop ñu ngi lay ziar waaw soxna man man maa woote woon benn jour bi ngay def ci émission gaspillage dans les cérémonies. dëgg la mooy bi ngay wax ci affaire nganu màkk yi maa indi woon taalif ba. dëgg la dëgg la macha allah taalif mhm. bu neex ba. waaw maa ngi lay ziar bu baax a baax di ziar Ndoye Bane moom macha allah ndeysaan ndeysaan di ziar waa TFM di nuyu groupe Futur Media yëpp di rafetlu seen liggéey ndeysaan fa tabaarakallah maa ngi ziar bu baax ñëpp di nuyu mbokki téléspectateurs yëpp nag ndeysaan mm. ndeysaan macha allah waaw noonu yi nga xam ne defoon naa ko ci ci ba may waxtaan ba ba may indee taalif bi noon yi laa bëgg a defaat tamit ci thème bi ndax man damaa doon koo xam ne dama yëngu ci wàllu wolofal. gëstukat nga da daanaka fi yëkkati rek. def naa ci ab taalif. ba dëgg la gëstukat nga waaw léeg-léeg damay bëgg di dugg waaye sama wàllu liggéey heure bi liggéey ak yooyu bët sa fan yëpp nag maa ngi maa ngi essayé di dugg waaye liñ bi day dëgër daal ndeysaan ndeysaan mm. bisimilah bisimilah waaw léegi bala maa dugg ci taalif bi damaa bëgg nga may ma rek nga xam ne moom ngeen di waxtaane lu am solo la mm. mm-hmm. ndax ki nga xam ne mooy du ma ko wax du tudd biñ sax comme ni nga ko waxee ci commencement bi mais njabarkat yi nga xam ne ñooy liggéey liggéey boobu mm-hmm. ak ñi nga xam ne ñooy seeni client mm. ku ci nekk dafa am loo xam ne bëgg naa la ko wax li ñoo ciy njabar mm-hmm. suñu borom subhaanahu wa taala dafa ñoo wax bu ci teel fa muy mujj parce que dafa xam ne laa yuflixu saaxiru xaysu ata mm-hmm. jabarkat moom du du texe mukk fu mu mënti jaar du texe mm-hmm. loolu suñu borom woon ko garanti mm-hmm. ba pare suñu borom subhaanahu wa taala nammee aw yiw ci doomu aadama wala mu namm abul ab lor ci doomu aadama amul kenn koo xam ne mën na koo téye ba du ñëw ci moom mu wax ne in yamsaska llaahu bi durrin falaa kaashifa lahu illaa huwa wa in nee na bu bu aw yiw dawee ñëw ci yow. Mm. kenn mënu koo baaree bu aw lor di téye ci yow amul kenn ku la ci mën a protéger ku dul suñu borom. suñu bor Serigne Touba moom mi nga xam ni moom dafa gëm suñu borom xam ni lor ak njëriñ mi ngi bawoo fa suñu borom mm. dafa wax ni an naf wa durru min arrahmaani laysa min al suudaani wal bidaani mu ni njëriñ ak lor du jóge ci ka yàlla ni rahmaan jógewul ci nit ku weex jógewul ci nit ku ñuul waaw kon loolu mooy li nga xam ni moom moom moom laa bëgg a waxal ñi nga xam ni ñooy ñooy ñooy njabarkat yi xam ni ñoom mënuñu mënuñu euh, créer nit problème mu mënuñu ko loolu li suñu borom dogal ci man. ndax euh, suñu borom subhaanahu wa taala. Mhm. Sëriñ Tuubaa mi ngi waxaat mi ngi waxaat ni laa tashtari dunya bil uxraa yaa fataa man baa anuuran bi di jaa fasa yendam mhm. mhm. bul jël sa àllaaxira jaay ko jënde ko sa àdduna ndax boo ko defee bis dina ñëw ngir rëcc bu yàq kat. boobaa lu waay rëcc nag lu waay lu waay rend boobaa. bisimilah bisimilah Diop Diop waaw bisimila ci taalif waaw waaw waaw parce que ñuy xaar dañu bëri kenn du doyal ci yow bisimila bisimila voilà moo tax ma ni auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mhm. njabarkat yi mhm. Mhm. ku aja gën ku aja gën a bañ ku séentu kaw ku boot bukki nag xaj ni la baw lu mag paq ba xeeñ weñu di ko biiw mhm. bu yemoon biir këram xëy na du siiw dëgg la lu waaye nëbb nëbb noo def mu xeeñ mhm. ndax bu nañ toroxee toj faaw mu xeeñ mhm. moo tax tay jii ma indi ab ndénkaan loolu bëgg naa na ko ñëpp taataan nit ki nag dundam li koy mën a doxal moo di nangu ak gëm li yàlla dogal moytu ay tereem tey jëfe ndigal sàmm diineen ci lu ko mën a nëxal xërëm njabar ak xeeti gisaane yii da daan leen te bul ko caaxaane sunguf ak i fas béjjén ak i pettaaw reen ak i xaatim moyalu ma ay xaaw mhm. xëccuñu jëriñu defuñu bay jindi jàppal ci alxuraan moo la mën a jindi jabarkat du texe yàllaa nu ko xamal yoneen jàngale ko tama wax ji gëmal mhm. ku muy sa mbir yow jàjjul ta bàyyi neen la yu leer yu kenn mën la lay mhm. di lay gisaaneel ni xam di xam-xam lu xëy bu texe la yu mu lo yu mu teg loo am mu yóbbu jaxane jaxase na sam xel kii bul ko wóolu wallaahi laay giñ gëmal ma loolu pexeem iblis boo demee ba gëm ko mu daal di lay mbar mhm. fay ma ma ñaanal la nag mu ko feesi xéewal bu mënoon ba di ko def kon dootu jeexal mhm. ay xeeti xeej lañ déglul ma lim leen nga xam te moytu loo mënta daw leen ki lay fanaanoo ak ki yor ay pettaawam mbaa ci tiim suuf ak di rëdd am na ci ñay boo ñëwee ba laaj leen nii lañuy ñuy def déglul ma yee leen dañuy dem gëstu koo jege ku la xam laaj ko say xibaar kii bul ko gëm. Mhm. nga ñëw mu wax la nga naan ko kéemaan lii ci lal ab garam toog di tuddoo maaman ndax nax la lay def na ko daw loo man mhm. seytaane ko ngemb sol kooki pexe muy wër di yàq di jaxasee ka naxe féewal nañu mbokk yi tas nañu sëy yi lii moo di seen mbir nee leen ma ëpp këy kër yépp tas na ak bare bi liggéey yi lëmb nañu xel yi ci seen jabar yi wujj yi di bañante di defante safaan te te leen ko yóbbee ma nga këram jaaxaan mhm. mu bind way yi ngir bëgg a ñaax kii woote ni daa xam def lu baax. ba xel yëpp juboo bokk di benn. Mm. te ragal yàlla bañ a yàq kenn. waxkat yi wax leen ngir mbir mi faju mm. kuy fajoo ab jant nag waroo di tëju. Mm. xoolal ma làmb ji ak ni mu mel ku nekk ci ab ruq di woote ni ay may mbër yi di leen rang di wut ci gàllaaj li li jëm ci weexal lu seer la ñuy laaj. te naan la sangu ji ci biir armeel mbaate naan la indil ma suufu bàmmeel. Mm-hmm. léeg-léeg ñu jël nag sol ko mu man yeew ko mu ni dangu ñu faf ko rendi tuur deretam xañ ko bakkanam mhm. ngir xeeti xam-xam yu ñuul yi te lëndëm xanaa ki def lii xalaatul bés ba ñëpp di dekkee dem bi wuy ji borom ba mu am ci ñooñ seen gëlëm te ëpp na ba tax seeni jëf xalaat ko ëpp na alxuraan di sell di waxi borom bi mhm. ñu lal ko jéggi mbaa ñu teg ko toog ci seytaane ga gañe na jël na ndam li bàkku mhm. fu mu toll kuréelam gaa ngay gën a yokk am am bi teew tax yàlla ñu fàtte te moo ne buur moo di buur bi di àtte lu yàlla dogalul neexu euh, lu yàlla dogalul neex la du neen neen la du luy sax mhm. dëgg dëgg la gu wér loolu ar alxuraan nañu ko wax lu diine ñaawal euh, du baax ci aada diine li gën a mat ŋàññu ma aada nan delloo ci xel yi te ragalaat yàlla lu fi waay mën a def ëllëg mu fay la asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatu rafet na macha allah defe naa ni taalifam bi tënk na lépp. mais tànn lépp loo wax ah. walaay walaay lépp la indi walaay mhm. te it te it xam nga thème bi loo wax wax wax am loo des. am loo bàyyi. Mhm. loo wax wax euh, dama bëggoon euh, ñu taxaw tuuti dafa am lu ma ñor. Mhm. ndax xam nga léeg-léeg nga gis kenn koo xamante ne ne day bàkkoo naan. Euh, nu mu tuuti euh, li ñu doon wax loolu rek jigéen daf koy def góor. waaw ah góor def ko jigéen. Mhm. Mhm. léeg-léeg ngay sëy jigéen koo xamante ne ne que saa waay keroog ba nga xamante ne ne que seen diggante jeex na. Mhm. noonu lay demee waat ne dootoo takkati beneen jabar. la am na nga toog 30 góor gi du takk jabar. wala comme takk mu dem waaw tëkku la tëkku la. donc yooyu nga xamante ne ne que góor sañ nga ko def jigéen jigéen sañ ko def góor. loolu yëpp responsabilité yu rëy yooyu ñuy jël devant Dieu. lu lu am na beneen bu góor di def jigéen di ko def. di. xam nga adultère bi dafa bari ci dëkk bi. dëgg la te góor ñu bari nga yoom ci dëkk bi li leen ko teg mooy jabari jàmbur. Mhm. te gaa yi takku ñu jabar noonu rek ni ko bàyyi ko muy dem marché kat liggéeyi ko ñëw de. Mm. am na ci góor ñoo xam ne dañuy protéger seen jabar te seen jabar sax du ko xam mm-hmm. protéger bi mooy góor bu la tiim mm. beneen góor bu la tiim bu dul sa mm. jëkkër mm. fa lay doxee ngeen boo galaaf ba abadan ah, loolu loolu loolu loolu loolu de moom defe naa ne xam naa ne benn baaxul waaye boobu tamit xam naa ne sooful trop daa sooful trop mais problème bi mooy tey ji su jëkkër ja deewee nag nga am beneen jëkkër doy na waar daal. xam nga xam nga loo def rek am na lu koy dindi. Mm-hmm. loolu kañ lu koy dindi. Mm. day ji soo leen àndee di say di dem. Mm. kenn dina ci njëkk a dee. Mm. am na ci jigéen ñoo xam dañ koy def seen jëkkër. seen jëkkër yi beneen jigéen bu ñu dem. ñoom. dañuy dañuy ngemboo dañuy ngemboo glace. Mm-hmm. seen jabar yi tamit fu ñu dem seen jabar ji dem wala ñu dem seytaane këf leen ñu dem dajeeg beneen góor. xam nga xam nga lii yëpp lu koy def. waaw yàkkamte jugement wu yàlla. dëgg la. xam nga. Mhm. ki nga xamante ne moo la ne lii araam na tifaaxan. Mhm. bul jege bul laal bul de xam nga itaxu laaxa lu ne wax na la ko. Mhm. kooku defe naa ni su fekkente ni yow mii nit. gën nga ko yàkkamti la nga xam ne dig na ko la la Ndiaye loo di wax ne poste douane la. ala kulli xaal dinañ la wisi. su fekkente ne yow aji ko góor ki. yàkkamti nga ba ne du ma xaar poste douane ba boo te borom douane booboo dàq fuye. borom douane booboo dàq def lépp. nga ne man am naa sama pexeb àddina fii. boo xamante dinaa ko def lii xam nga loolu lu koy def uh-huh. ah yàkkamti mm-hmm. yàkkamti mm-hmm. yàkkamti ak ñeme mm-hmm. ñeme ñeme suñu borom ñeme yàlla ñeme nañu ku ñu xamul wax naa la bërki dem respecté jël ki dem ku amul kilifa da nga koy ragal te yàlla amul kilifa salaamaaleykum waaleykum soxna si noo def fooy euh, woote waaw lebal la ne ko tur wi fooy wootee nga wax sa tur depuis une mais je pense que ni dañuy wax dëpp mooy comme li tata da ngeen wax rek ça revient du pareil au même xam nga. Mhm. dañu war a affaire maraboutage dañu war a jël tege de côté mooy tere avancé de. Mhm. affaire maraboutage. Mhm. moo tax ñu tardé. parce que à chaque fois ko comme li tata da ngeen wax rek da nga war a jub euh, defi sa benn affaire wala nga war a jub dem nga liggéey wala lii mais tu préfères aller voir pour dire. mais diw moom mi ngi toog ci bureau bi maa ko gën a kii machin et tout te moom jàng na ba am ay diplôme am. Mhm. Mhm. ba yàlla teg ko fa. yow nga jóge fële benn samba booy jàngoo xam droit bi xamu la nga ne par force da ko bëgg a yëkkati. Mhm. mais loolu ñu mu dem. day daaneel société bi sax. ah day daaneel société bi sax. dëgg la waaw non mais franchement moom tax a taa dem. affaire marabutage. moo tax avancé wu ñu parce que man pour man. des des marabouts là ils savent mhm. rien du tout. buxaaba yi buxaaba yi. ma ne buxaaba yi. peu importe ni ñu lan la leen di wooye man moom man <laughs> nee naa sëriñ moom. bu doon féetee cent franc sax du ma ko def. dëgg la wax lay wax nga dëgg doom. parce que parce que dañuy déjà ils ils ils te font perdre ton temps. dina mhm. la jaxase say mbokk. dina la mhm. jaxase say xarit. ah. ah dina la. Ah. yow kër boo dugg am na ku xees am na ku ñuul. jërëjëf ay waay doo wax am na am na ku ñool am na ku gàtt. waaw. yow léegi am naa sama benn cousin boo xamante ne ñool na gàtt na mu ne ku ñool ku gàtt na ma dem ne mami la. ndeysaan mami la kañ kër wax te mami yëgul. ki ñuul xamul. dëgg la xam nga mara buy daal ñu leen mënoon dégër pii xaw ma nan laa am. non non non walaay wax nga dëgg doom. bu xawee. dañ leen mën. dafa leen sanction boo xamante ne. Mhm. il faut arrêter de raconter des conneries aux gens. Mhm. parce que traumatiser nañ nit ñi. Mhm. ba ku ku jug ta ta daa pas temps à leneen da ngeen di marabu marabu. pour man mënuñu dara franchement yàlla rek moo mën. yàlla yàlla mooy Karim on les pas am na ku woote sànq di ko wax. je suis parfaitement d'accord avec lui. parce que dañ ne ay jullit lañ yàlla lañ waat ko dina gëm ñu yàlla. jërëjëf maa fii kontaan nañu. kontaan nañu. kontaan nañu sa mhm. participation am na solo. dëgg la léegi ñu waa euh, dem ci publicité bi. Euh, mhm. xam nga Ndoye Bane. Mhm. Euh, gis nga nit ñi. man daal li daf ma yéem. gëm nañu wóolu xaaral bi dañuy dem ci publicité balaa ngay dajji paquet. parce que gis nga Youssou dafa wëy boo xamante ne daf ko woy sama gént gi yéena ma ci àdduna. yoo xam nga fa muy waxee yàlla bàyyi la ak joojuwaay. dañu dem ba nga xam ne. psychologiquement suñu amee dañu xoolal gis nga ko fi yàlla bind ne da ngay xëy suba am sa oto nga ne sama sëriñ ba mën na ñaanaa parce que bi mu ne maa boobu waaw yow dara nga am loolu yaakaar gi fañ ko teg xoolal fekk ne yàlla bindoon ne ne ay sàngam di nga am nàngam uh-huh. nga xëy suba tëdd nga ne waaye kama tëkk woon ca bureau ba la fekk ne mag ñu baax ñu fi nekkoon suñ toogee tuuti feebaruñu sax uh-huh. dañuy naan lu tax yàlla mer ba tegu ma nag xam nga mooy li ma la laaj démb dañu dem ba nga xamante ne uh-huh. nit yi dañu dañu mais na na nañu delloo suñu bopp nañ dem léegi dellu si ñu dajji waat paquet yi ndax enquêteur dekk hmm. njatu baanu fi de non tey doo door kenn tey garaawul non yu garaaw yi il faut mu génn xam lu baax ci mag kontaan naa ci yow jërëjëf kon euh, mbokk téléspectateurs yi àndaat nag ak suñuy sponsor nee naa leen lépp loo xam ne bëgg ngeen ko fësal bëgg mu baax bëgg mu jaree GFM moom mënta ñàkk ndax dañ koy seetaan di ko déglu di ko liir bàyyi leen ci xel bu baax a baax di leen fàttali tamit suñu site bi www point gfm point sn fatabakàlla macha allah noonu rek lay demee ci kaw ci kanam waaye di leen fàttali ne ñu ngi ci thème boo xamante ne lu lu yéeme mhm. yu yéeme yi nga xamante ne ne ñu ngi ko fiy defante naam sax am na ñenn ñoo xamante ne seen éducation wala boog seen parcours tax na mënuñoo ñàkk gëm lii ndax fakkatal na leen dal na leen wala dal koo xamante ne takk na ci ñoom mhm. ndax xam nga tubaab dafa bëgg maa dund wala maa fekkee kon nag su fekkente ne dajje nañu paquet enquêteur am ngay paquet inspecteur am ngay paquet waaye enquêteur tamit am na yeneen paquet yu garaaw mhm. fooy doore ma lay xamoon may waxaat que ñiy seetaan ñu jël tata dëggeen ni neen mën a demal enquête yi ma dem ci ñi xam ak ñiy dund affaire yi mm-hmm. def cay enquête jël ay notes mm-hmm. travaillé ci bu baax a baax ba nga xam ne suñu ñëwee dinañ am lu leen mm-hmm. li may wax nii yàgg naa ko wax jigéen ñi protéger seen jëkkër yi ak góor ñi protéger seen jabar yi ba nga xam ne seen góor góor gu góor gu tiim sa sa jabar goo xam ne du yow fa lay doxee ngemboo glace ba keroog muy faatu gars yi bari ñi ngi naan ay dama télé dama dabak yooyu looloo leen dem ci jabari jàmbur. Mm. loo xam ah, loo xam ne dañ koy def ci banaana. Mm. banaana waaw da ngay jël sa turu jabar. Mm. def ko ay affaire soo leen sëyee pare am affaire looy jël foofu looy jël foofu ci mandu yi. def ko ci ci ci ci banaana. ci boppam. denc ko. Hmm? day nooy rek. ndax tiim na bar fii ak banaana baa ngay nëpp sa affaire yi noonu lay mel. am na yoo xam ne dañ koy defar dugal ko ci ngunu ganaar protéger sa jabar. contraire bi am tamit protéger si jëkkër waaye kay def loolu soxna mbaa moom ci jëm boppam dina maandu na ko diine bëggee wóor ma ndax dina maandu de parce que mën na dem ci jabari jàmbur demal demal ci façon yi demal xam nga mën nga dem ci jabari jàmbur tamit fekk jabari jàmbur jooju tamit dañ ko protéger xam nga garabu salaan hmm. salaan mooy soo demee ci àll bi mooy gaaw salaan soo ko tiimee sax def ko nii mu mu mu commencé jooy mm. dañ koy gas ba ca reen ba suul ko fa mm. soo ko fa suulee mm. képp ku tiim sa jabar lu bon loolu la ñu la jox xam fa fa yooyu fa koy suul ku tiim sa jabar fa lay doxee yoom ba abadan ku tiim sa jëkkër. fa lay doxee yàq ba abadan am na ñoo xam dañuy toog di indi. kon mari fee femme fee. waaw mais mm-hmm. bul bul jaar foofu da ngay naan wax naa la doo doo jaar lan déedéet heureusement sax nañ jël téléphone. déedéet ngeen boo galas gi déedéet am na foo a ma da ngay naan dafay fóot. dañuy fóot waaw waaw xawal foofu jëlee ko ci biir waaw fóot kon boobu fóot. déedéet dama leen di réglé. fóot fóot fóot fóot mais yar bi ñëwul. allo. allo salaam soxna si. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. ñu ngi lay fay bu baax a baax fooy wootee. maa ngi wootee Tugal. Tugal waaw naka waa Tugal. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Eh, diggéen man la petite sœur. ah petite sœur bég naa ci yow de. waaw damay ragal nag alaaji bi takkal ma samay bagage ndax démb war naa dépenser lu ma 30 euros te dugguma. maa la wax lii de waaye addiya la. ah waa addiya la addiya la waaw jaral nañu ko. ndeysaan ndeysaan. dégg na euh, oustaz Alioune Sall nee na quatre-vingt-dix pour cent de musulmans. Mm. Mm. nee na boo ci génnee quatre-vingt-dix pour cent de naaw fekk ñaataay ciy des ma ne ko dix pour cent. Mm. wallaay wallaay. nañ gëm yàlla. Mm-hmm. am na xale bu góor bu am na ku ku waaju dugg ba ci démb wax na lépp. Mm-hmm. Mm-hmm. nasaraan yi avancé nañ trop te xamuñu lan mooy lan mooy maraboutage. dëgg la. suñu ña suñu dellu gannaaw gi yépp dañoo umu. Mhm. màcci wuñu de réew mi màcciwul dañoo umu. <laughs> wallaay wax na dëgg yu bon yi la. ndax yu bon yi ñuy defante. dëgg la. Mhm. Mhm. jigéen ñëw naa Sénégal dem ci cimetière di siyaare ji samay waajur. ma fekk foofu ndeysaan béy yu dugg fa daal di am yu ñu fa bàyyi béy ay béy yu dugg ci cimetière bi am yu mu fa bàyyi. ma koy for ndeysaan sama rakk sama rakk bi ma àndal sama sama sama rakk ndeysaan ne ma bu ko génnee armeer yi de ma ne ko ndax la mun ma dañuy foog ne dafa am loo ciy wut. ne ko laa xawlu wala xuwata. ma ne ko Sénégal yéen toll ngeen foofu. Mhm. mu ne ma Marème man kaa mun ma loo xalaatul ci dëkk bi mi ngi ci. dëgg la. ñun dañoo jaaxle ñun ñi fa jógee léegi mu mat 15 ans ñun li ñuy dégg Sénégal wax mag wax naa la ko ñun dañoo jaaxle. wallaay wallaay am na mutation bu rëy. ci yàlla ak yonentam bu tedd bi. Mm. bàyyi yu bon yi ñuy defante ci dëkk bi. dëgg la. lii kenn mënul xam lii lan la ñun léeg-léeg ñu ñëw ñu ngi nettali ay affaire mënatuñoo gëm li am Sénégal. wallaay wallaay yu pataa. <laughs> nasaraan yaa ngi fii dañoo maandu. Mm. maandu nañu du ñu jëw. Mm. ñun ñu ngi fii am na lu ñu yàlla defaral ndax gisuñu ku ñu jëw du ñu jëw ñun. Mm-hmm. ndax ñëpp xëy nañu liggéey yi. Mm-hmm. affaire bi daal dafa doy waar. affaire bi am am jot ca la bokk nag am jot. dafa am jot léegi léegi man daal man daal di man man ñun man xoolal damaa tëdd ci guddi gi di xalaat muus mu ñuul mi ndeysaan. <laughs> ay waay ay waay ay waay. mu ñuul mi jox ma sama muus mu ñuul ma ma dajaloo. ay waay waay waay muus mu ñuul mi. muus mu ñuul bëgg a traversé. Mm. oto bi ñëw ma xam ne muus bi buy traversé oto bi bu ko fiilee rek mu dee. ndeysaan. ma topp muus mi ndeysaan di ko pousse pour mu bañ a traversé tali bi. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. ndeysaan am na ku ne ma soxna si yow ma ne ko man nii laay dundee. wallaay wallaay ndeysaan. nañ leen wàkkirlu ci yàlla gëm yàlla. wallaay wallaay wallaay wallaay ndeysaan. li ma ko nawee mooy liggéey teel a xëy. ndeysaan la dëgg la. liggéey ba bàyyi boole wuñ ci benn caaxaan. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. diggante nga liggéey ji vacances nga liggéey lu tax ñun ñëpp di jël suñu vacances yi ci été bi. ndeysaan mooy nekk amoo droit absenté da ngaa war a toog di liggéey di liggéey Sénégal. ah bu ci bureau boo dugg doo fa fekk kilifa ga. ah. dégg ne sama gént gi yee na ma ci àdduna. Ah. waay waay waay waay boobu la la a am CD bi. ya da ngay na yàlla nee na naan kii mooy waaja nee na yàlla nee na xaar ma bàyyi laag. ah bàyyi laag boobu waay. <laughs> billaahi. yàlla nañu yàlla jàppale. amiin dégg nga ma bëgg laa wax benn affaire. dama naan. jigéen chimère neexu leenam. ma daal ne waaw wallaay bëgg ko. Eh, eh, mami mami mami lay awu mami lay awu. mami laa bëgg moom moo parce que yàlla maa toog ma ni mami su may wax rek awu ma ma jigéen chimère neexu leenam. ma ni waaw wallaay ne kenn bañu ko. kii mooy yaayu ñëpp. neexulee na waaw wallaay ku baax. baax kenn bañu ko. sama mag maa la bëgg ci sama biir dafa yàgg. dañu wakkirlu ci yàlla allahumma salli ala sayyidina muhammad ndeysaan jërë ngeen jëf ndeysaan jërëjëf lii kum doyul dara du la doy macha yàlla fayal ni leen dañuy yokk ñu góorgóor ndax aw sas la yëpp ay sas la mais euh, euh, enquêteur mhm. balaa ngay dem ci sa paquet mhm. xam nga dafa leen loo xam ne tamit am na ci ci mbir mi. dëgg la ndax léeg-léeg nga gis jigéen joo xamante ne ma ngay dem. Mhm. di def ay xaw fa fuufa. Mhm. ca ka nga xamante ne nekk moo ñeme yàlla yaa xam dafa looy la muy def. Mhm. kooku liggéey la ci boppam. waaw di la fowee. xam nga dafa am benn histoire boo <laughs> xamante ne ne que. dañ ma ko nettali <laughs> États-Unis dama doon jooy. ndax euh, euh, euh, kooku defe naa ni su ma koy su ma koy wax sax ña ma ko seqaloon. ñu ngi toog xam naa di ma dégg. dëgg la ci suñu benn doom. Mhm. boo xamante ne ne euh, euh, yàlla dafa def mu ñëw fii rek tombe ci yooyu mais gis nga xale bi bi may nettali. Mhm. waaja mujj ga xar fa fuufa na ko ba xale ba dem dëkkali waaja parewul de. Mhm. waaja dem ca beneen dëkk. xale xale baa ngi yor États-Unis liggéeyam de. xale ba toppate waaja xale bi su lay nettali. guddi ga ka ko def loolu na muy summeekoo ak li muy diwoo mhm. maanaam teg ko ci place rek mhm. teg ko ci place rek xale baa nga juddoo foofu yore ay nationalité mi yore ay bagaasam mhm. gis nga mujj gi su lay nettali waaja fa mu ko teg nee na te moom dafa am kenn koo xam ne dafa ñëwoon rek ne ko yow daal comme yi ngay jaay jarul te euh, da nga fi war a def ci ci ci masala euh, un mois nañ dem ma yóbbu la ci kenn koo xamante ne ne que dina la jox loo xam ne sa marchandise bi dana jar dégg xale boo xam ne mu ngi fa juddoo yooyu yëpp xam fa mu dem gis nga demam boobu def pedd na deux ans nee na su su ba di ñëw ci moom rek ca néeg ba mu ko teg nee na yi muy diwoo balaa mu ñëw di sëy ak moom rek non xoolal man mu gi jooy naa désespéré naa crise mhm. naa mhm. angoissé naa ci di déglu xale bu innocent boobu yooyu lépp li ko dal tataa dëggeen ah. laal nga fu garaaw mhm. parce que da ngay gis loolu ñi muy dal souvent mooy ñu ci ëpp jigéen ñi mënta am doom ñu dem ci benn buxaaba pour mu ñaanal leen mhm. buxaaba jël leen sangat leen ba xiir leen ci seen bopp buxaaba ba jàpp leen di leen def yëfi saay saay di leen def yëfi saay saay mhm. ba ñu ëmb seen jëkk ñu bari ñu ngi fii ngénte doom yu ñu jurul ah, ah, ah waaw waaw dëgg la de ñu bari ñu ngi fii ngénte doom yu ñu jurul mhm. ba dañuy sa jabar trois ans quatre ans dix ans doom benn bu xaa jóge fee la mën naa laa faj mhm. jox lay affaire nga sangu jox la nga naan sa sa xel mi yëpp xiiti la ci bu xaaba bi mhm. ngay dem bu xaaba di ñam xorom ngay dem ci sa jëkkër sa jëkkër yaakaar ni moom moo ëmbal waay foofu taxaw foofu ma jël ki ci ligne bi ah waay doom taxawal foofu ma jël ki ci ligne bi dëgg neexul de waay waay tension baa dëgg taxawal ma jël ki ci waa jëlal kii ko gën a rëy. c'est vrai ndax ñëwaguma. Ah, ah, kon da bëgg a doggal. allo. allo. waaw bisimilah. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si. soxna si ñu ngi ngi delloo bu baax a baax. fooy wootee. Euh, fii maa ngi woote fu maa ngi lay lebal fi ngay wootee sax nag macha allah. waaw si defe naa ni xam nga kii wax ku mu doon. waaw waaw waaw waaw waaw bisimilah. ndeysaan. maa ngi sant maa ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah. di julli ci Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam. di la sant di sant ñi nga toogal ñëpp. ndax defe naa ne tey war naa mën a wax ci thème bi. thème bi dund nga ko doom. ndax dund naa ko te yow moom xam nga ci dara. wallaay wallaay mhm. wallaay wallaay cey. léegi ça juróom-ñaari at. juróom-ñaari at. tey. yoo xamante ne nii daanaka léegi sama tànk Paris la ëppee ka Ndakaaru. Mhm. ma jaar fu baree baree bari. wallaay te li tax ma jëm ko mooy. Mhm. wàññil wàññil wàññil télé bi soxna si. li ma li ma dund la. wa wàññil télé bi ñu déglu la bu baax wàññil télé bi. semaine ma ne ko li ma dund la. Mhm. dëgg la. li ma dund weesuwul ci sama biir famille. Mhm. sama biir famille la. Mhm. ma dund ko du ma tudd tur nag. dëgg la. ndax dama dellu yëpp bàyyiwaat ko ci loxo subhaanahu wa taala mi moo yor yëpp. ngeen mës a gis li te mooy docteur bu mag bi. Hmm. dëgg la. may jënoon ñoom nag mu mbokk. sës si man rek ma xam ñi ko def. Hmm. xam ki ko def. ba tey ji yàlla dogal na dama dendoon ak yow am kër gu ma dëkkoon. Hmm. bu mu jugee dañ ma génneloo ca kër ga. laay walaay seede laaj. ndax dëkk bi mooy naa naa yow bul dem man naa dem boo bëggee dem ñu faagaagal la. Mm-hmm. yow li may wax xam nga ci yow. walaay walaay walaay walaay xam naa li ngay wax. ñëw nga fi ba Paris. danaa ba yàlla ñu sama gis nga ma. <coughs> te nangu woon naa nga gis nga ba ma bëggee gis. ndax xëy na ci bari dañuy ñëw xëy na pour gis la dégg na yaa ngi pour mën a xam noo nekkee noo toogee. Mhm. ndeysaan. mais sama diggante yow amul benn nëbb. déedéet ñoo bokk lépp. te bi ma ñëwee ba gis ma. danga ma dalalaat. yokk ma waar ma. ndeysaan. ma fekk la ci sa hôtel. ndeysaan. ñëw ba ci sa biir chambre loo mayul kenn nga may ma ko. ndeysaan. ñoo boole teranga yu bari yëkkati say mbubb sañse yu bari jox ma. ndeysaan ñoo bokk lépp. na ma defal ñi defal nangam. jox naa la loo mën. bu bàyyi sa bopp. bu bàyyi sa bopp defal nangam defal nii li bu tax a def li bu ma tax a def dara. kon nag Diallo dama lay sant bu baax di la gërëm. ndeysaan ndeysaan di lay ñaanal foo bëgg a yegg yàlla na fa suñu borom yeggal. amiin amiin amiin ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal suñu yaay Fatou Camara yal na fi yàlla aji Fatou Camara yal na ko fi yàlla yàggal. allahumma amin amin amin amin ya rabbal di ñaanal ñëpp. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. dama bëgg nag su ma yàlla dimbalee ma ñëw. incha allah. ndax it maa ngi fi bëgg yàgg te xëy na tubaab yi lu baree bari xëy na lu ci bari bi ñu ko gis. wallaay du feebaru tubaab. te it wax dëgg yàlla maa ngi bëgg sonn maa ngi wàcc lu ci yàlla nag. Mhm. maanaam du dama wedd yàlla sax waaye xëy na am na loo xamante ci suñu coutume la. Mhm. ma bëgg nag su ma ñëwee muy ndoyu baan moomu di mami Jóob mhm. ak yow moomu sa bopp mhm. seen suñu yooyu ngeen yore comme ni ñu koy waxee ci <laughs> dama lay boole ak inspecteur ak enquêteur waaw parce que foog ma ñëw jéem na a ndax ñàkk leen fréquenté wóor erreur bu rëy la erreur bu rëy la ba léegi nag lundi ba léegi maa ngi bëgg a dugg mënu ma fexe ba dugg wallaay gis naa message bi toujours message laa lay yónnee gis naa message bi di leen wax ne leen nag lu wér la te man nii dama koo dund. wallaay wallaay wallaay kenn musta gis. yow xam nga man xam naa yàlla xam. kenn musta gis li kon damay dellu leen ñaanal TFM. ndeysaan seen émission bi rafet na seen toogaay rafet na. di leen ñaanal yéen li ngeen bëgg yéen a ko xam yàlla leen ko suñu borom defal. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. ndeysaan mami. Mm-hmm. Euh, gis nga soo gisee léeg-léeg loo weddi xam ne nit soxor ndax su fekkoon te ne fa tabaarakàlla macha allah da ngay wër soxna su jekk mhm. liggéeykat xam nga ca këram bugg ko yor teraangaam di bàyyiwul mbokkam bàyyiwul am di jàmmam xëy suba rek li xew doo dem. su ma la waxee teraanga de doo dem rek. li muy wax sama yaram bi day daw xaw ma lu tax. li muy wax yëpp sama yaram day daw te xaw ma lu tax. kenn kenn mës gis li kenn mës ta gis moo tax gis nga gis nga léeg-léeg léeg-léeg da ngay toog gis ku nekk ci diggu dooleem jekk lool macha allah sa yaram day daw mhm. sa yaram day daw ndax man pour ma xooloon ko rek plaisir la mhm. xoolal yaa xam ci circulation bi fu ne saafonte bi parce que fa tabaarikàlla la allah. da ngeen genre yooyu bu leen yàlla dimbaliwul dëggantaan. waaye sept ans ngi nii waaye waaye waaye nag ba ma ko fekkee Paris nii bi ñu demee def wareef Paris. Mhm. dama ko ni gis nga jàppal ne rek lii da nga fa xas mut mi rek. Cheikh Abdoulaye sama sëriñ bu baax ba ah, daf ne. Ah, ndax ah. diggante summeeku ak solo faawu yaram neen jaar am ci yoon foog yaramu neen am ci yoon. Mhm. dina wér jëkkëram jàppale ko. jàppale ko mais lii kenn nit suy dund te amul nattu yaa ko wax léegi nga ne suñu kilifa yu baax yi buñ musaana toog dara dalu leen dañuy tiit wallaay wallaay nit suy dund xam nga yàlla suñu borom mhm. yow taa déggan tey sa kër boo defee sa suppu kànja yu baax yooyu sa pend mbay yooyu mhm. bala nga koo yàq da raxas bool bi ba mu set kon yàlla suñu borom mi nu moom bala muy def ci ndabam da koy raxas ba mu set mhm. il faut que mu natt la xam yow mii sa dayoo fu mu toll ba bu ëllëgee bu la dénkaatee nga xam noo koy gérer waaye waaye waaye comme mbokk yàlla la mbokk mhm. ndax suñu borom bi nee na ku dog mbokk ma dog la mhm. lu tax mbokk saña def mbokk lu mel nii mbokk bu jege xëy suba nga gis sa kër ga nga xam ne moom nga tabax gën leen ca yaatal mhm. xëy suba laa la wax gis ñu ëw landaa def ko ca suuf nga tëddi nga xamante ne da ngay dem ba tëdd tëdd at ñu xëy suba fa fa loo xamante ne ne ku la jegewul mënu ko fa def déedéet suñu tijjee ñu ne ay yow lii lu bon nga xam ne fañ ko yóbbu sax dañ koy paasante ndax lii lu bon li nga xam ne dañ ko def xam nga ñett yi defar ñett yi defaruk bokk mhm. benn du ci sax karaw waaw muy làmmiñ bu doon sax karaw lu mu wax muy musiba mhm. mais yàlla mi ko bind te saxalu ko karaw moo bëgg lu mu wax muy rafet mhm. teg bokk làmmiñ a koy defar mhm. mooy sa nawle wan la ginnaaw nga wax ci moom loo xam ne doonte nekkul ci moom da nga ko wax ngir ragg deram bi ndax sàmm sa nawle dafa baax kon kenn waru koo lor ci sa làmmiñ beneen bi ci topp mooy loxo loxo ka ngay sëriñ ba ngay dem euh, bu xaaba ba ngay dem pour mu yàqal la mm-hmm. sa loxo nga yëkkatee jox ko mm-hmm. loxo boobu bu saxoon karaw ayam mm-hmm. mais la tax saxul karaw dañoo bëgg la muy jëf di sell tànk ko ñetteel taa déggeen du sax karaw ka jóg ŋàbb tànkam bii dem doxi ngir def musiba moo ko tey xam nga ndooy foofu lu ma fi bëgg a wax gis nga taa déggeen luy naan ak yuur bu egsee ba ci doog soo bëggut a dee faxasal mu wadd te lii ma gis ci réew mi day naanuk yuur kon nañu faxas ngir mu teel a wadd su ndooy pare ma dajji la paquet bi gën a garaaw. demal demal Ndoye dafa ñëw barki démb ci ñi nga xam ne dañuy dem ba màgget sax te duñu dégg alxayri. moom inspecteur Ndoye Bane. waaw moom lañu def samedi biñ lay tooñ noonu. ci mm-hmm, guddi mm-hmm, mm-hmm, xam nga loolu ñu baree baree bari dañoo yaakaar. maa ngi leen di bàyyi xel ci quatre euh, fay toj de. xam ñu ci bari dañuy jàpp ne. Mm. am na ci nag yoo xamante ne yenn ñi nee nañ ay faru rab la. Mm. yeneen ñi leneen la. Mm. mais taa dégg danga nga yor sa doom comme li nga wax léegi. jikkoom du la neex ci ndawam. nga dij ko dëj ko waaw dëj boobu day réer gone gi bis bu tolloo ci dégg alxayri du mën a dem mhm. am na ci ñoo xam ne moo leen bàyyi seen kër bañ am ñeen fukki at ak nangam mhm. juróom fukki at ak nangam kon day jaar dëjoon dëj ba réer fiir da koy indi sax hmm. nga dëj sa doom sa doom hmm. mais xam nga Sénégal dañuy wax pays teranga da nga nekkoon ci ki nga xamante ne ne que mënta am doom waaw ci buxaaba bi waaw buxaaba bi def ko yëfi saay-saay waaw muy ëmb waaw jëkkër ji yaakaar ni moom moo koy ëmbal hmm. waaw ndekete yow buxaaba baa koy ëmbal muy ngénte rek <laughs> mais looloo ngi toj dëkk loolu mi ngi mi ngi bàyyi ma jël après ma ñëw ma après après ma ñëw ci kii bi man xam naa li ngay <laughs> li may ree ak maa xam li ngay dañoo yàgg na waaw <laughs> yàgg nag de <laughs> allo man xam naa fa bi ngay ree allo mhm. allo bisimilah allo waaw bisimilah allo bonjour bonjour madame bonjour tata Ndegeen ça na ngeen def ça leen di ziar bu baax a baax ñu ngi delloo ziar ndeysaan bisimilah en fait dama ton woote juste pour participer ci émission bi. waaw waaw yéen a ko moom yéen moom émission bi. waaw en fait parce que man en général sax heure bi du ma fekk kër ga dafa may fekk bureau. dëgg la. mais tey moom dama ne xaaral rek moo woote parce bi daf ma xaw a jaaxal daal. dëgg la. waaw parce que xam nga ñun moom ay jeunes lañ. Mm-hmm. ñuy liggéey. Mm-hmm. xam nga léegi nag euh, ñuy gis ay affaires yoo xamante ni daf ñuy jaaxal. Mm-hmm. xam nga léegi xam nga boo yenn yi moom xamul rek xamuloo ko. dëgg donc euh, man dama nekk di liggéey. ci ñaari entreprise de par deux fois même chose dal ma fa. Mm-hmm. te bu ma waxee rek chaque fois nit ñi dañ may naan ah yow ko da nga war a jóg seet sa bopp da nga war a lii mais xam nga loo xamul rek xamuloo ko. dëgg la ñu bokk tam ci famille bu nga xamante ni suñu yaay. Mm-hmm. peut-être du ma ne xamu ko sax mais elle n'est pas trop versée dans ça. Mm-hmm. mais tamit xam nga lu la dal dalaat la rek dina tax yow tam sa xel dina dellu si. dëgg la tu vas te dire ah am na benn affaire comme tu dis rek li ñuy wax tout le temps mooy nañu delloo yëpp ci yàlla rek. Mm-hmm, mm-hmm. mais comme nu koy gars yi di waxee yàlla yàlla bay bay sa tool. dëgg la donc maa ngi déglu émission bi depuis ce matin. Mm-hmm. léegi man en fait li ma li may bëgg ngeen wax ci peut-être mooy. relation ci biir entreprise. parce que je pense que entre collègues surtout damay wax sax sama moroomu jigéen ñi parce yàlla dafa def su may liggéey presque ay ñoo fa nekk. amul euh, presque ñaari góor ñoo fa nekk sur une vingtaine de femmes. dëgg la. mais dama dañ may dañuy def ay affaire yoo xam ne daf may jaaxal. Mm-hmm. xam nga yow tey da ngay bokk ak ngay bokk ak euh, liggéey sa collègue boo xamante ne bokk leen sax domaine bi ngeen di liggéey yàlla daf leen boole ngeen rek. Mm-hmm. yéene ko dara parce que foofu mm-hmm. xam nga mais nit day ñëw ne la ah yow maytul defal di diw def na lii diw def na lii mais xam nga. loo gisul gisuloo ko xam nga tamit wax ñu wax la rek nga kii xam nga da ngay da ngay da ngay da ngay def ndànk. parce que xam nga àdduna dafa gudd tànk. dëgg la xam nga. dëgg la mais man personnellement sama cas personnel dama leen dama leen koy damay koy euh, partager ak yéen rek. Mhm. parce que dafa sama benn collègue bu ma bokkal bureau. Mhm. donc man maa ko fa njëkk ñëw na ma def naa fa peut moom muy doog a ñëw. Mhm. mu ñëwee xam nga rek yàlla xiir ma si moom xam yàlla da ngay gis nit rek nga bëgg ko. donc mu ñëw yàlla dafa def li mu doon liggéey man peut-être ko ci doon mun jàppale ma koy won di ko defal xam nga ma xëy benn bés rek. ama suñu suñu gardien xam nga gardien moom dafa baax ci endroit comme ni ma koy wax mm-hmm. ki lay garder sa kër ak ki lay sa bureau mm-hmm. Mm-hmm. mu woo ma ñëw ne ma ah madame ma ne ko naam mu ne ma euh, diw de am na ay affaires yu muy def ci bureau bi day bàyyi ba ñëpp wàcc mu def lii ak lii ak lii ma ne ko ah loolu dara du dara nañ bàyyi yëpp rek ci loxo yàlla fan yële ma toog rek benn jour ma ñëw sama bureau dama ñëw rek yegg si rek euh, dugg si ci biir bi dama teg sama saak rek may mel ni comme kuy miir. Mm-hmm. ma daanu. ñu yëkkati ma yóbbu hôpital ma dem ba ma demee ñu xool ma docteur bi ne ma ah mais y a rien ma ne ko ma ne ma pas de problème ma ne ko loolu dara musuma dal. Mm-hmm. docteur bi ci boppam moo ma ne dama nga seet sa bopp. Mm-hmm. mais comme li ma la wax rek xam nga loo xamul xamuloo ko. donc man dama xaw a dama xaw a affaire daf ma xaw a jaaxal daal. donc duma xam exactement lan laa war a def. du ma ne gëmuma ko du may aussi que gëm naa ko parce que je me dis yàlla lu mu tudd rek loolu mooy am. allah kulli xaal xam nga. Hmm. je veux dire da koy peut-être da koy jaarale ci nit wala mu jaarale ko ci leneen mais lépp lu la war a dal dana la dal. Hmm, hmm, xam nga donc soo gëmee yàlla delloo ko yëpp rek. parce que li nga am yëpp moom moo la ko jox su la waree xañ tam dina la xañ. dëgg la te comme nu mu koy sama maam di waxee tout le temps rek. yàlla bu lay defal il faut mu mel ni ku lay yàqal. dëgg la loolu la donc man loolu moo taxoon rek ma ne naa woote participer c'est la première fois nag ma koy def mm-hmm. mais juste pour ngeen wax ci quoi comme ça pour suñu genre yi yi mm-hmm. nga xam ne xamuñu ñu ngi doog a dugg si néegu sëy dëgg la ni sumay juste dëgg la dëgg la dëgg la mm-hmm. am nga dëgg la euh, semaine passée sax def nañu deux jours ah ci milieu liggéeyukaay bi xam naa dañ ñu yéex a jot semaine dernière bi ñu ubbee milieu du travail la ñu commencé dëgg la parce que en fait semaine dernière dama doon liggéey c'est que temps yi dama nekk congé depuis lundi voilà waaye wax du wax du wax du doy loolu la wax du doy incha allah. Mhm. taa dëggeen waaw. Euh, soxna si. waaw nga baal ma ma yóbbante la foofu tuuti. waaw xam nga ñun Sénégal nañuy moytu jàppal ma yan la ju bari ji. dëgg ndax du yërëm la ci diisaay bi mais bëgg xam la ci sa ndab la xam nga ka lay waxal tey mm-hmm. ne sa moroom nangam moo fi def nangam ak nangam su moom mooy dem ci moom ne ko yaa fi def nangam ak nangam dañuy moytu nettalante bi daal ndax kenn ku nekk am na peut-être na léeg-léeg looy dencal sa moroom ci sa xol mm-hmm. ndax xëy na ku lay wut jotu la day ji fi nga gën a jege mu mm-hmm. jaare la dañuy ñëw di la wax ay wax yoo xam bu da def ndànk parce que dëgg la mm-hmm. donc moo tax yu mel noonu bu ñu la ko waxee mm-hmm. comme li ngay wax da ngay naan merci rek mais doo da ngay xam bu baax xam nga uxu moom kenn du ci jugé mm-hmm. la loolu la xam nga jërëjëf xam nga sànq li ma doon reetaan xamoo ko sax parce que euh, euh, kii euh, alaaji li ngay wax noonu ci jigéen ñi dañ def attention bu baax a baax dafa am benn waay joo xam ne daal tuur bi sax balaa ma ko doon xam alaaji parce que ay at dafa yàgg déru déru déru déru déru donc nee na ni ñu koy defee fii day nekk fii déru bi nekk ci digg bi. Mhm. léegi waaj. Mhm. bu xaaba bi nga dem seeti. Mhm. jooyo jooy jooy nekk fukki at amoo doom du li def lim lay jox njëkk la sangat. xam nga jox lay ay téere pour xiir la ci boppam. waaw ngay toog ba nga xam ne soo ko gisul rek. defe ni ne ne gisoo kii. léegi nag premier kii bi day ñëw mami soo toogee fii. waaw tey tey nga pare enquêteur toog fii. Euh, kii toog fii. déru bi nag xat. Uh-huh. waa ji day day day def comme ni ko ndeyam juree woon te ne dalay faj. ndaw si tamit ne ko defee bu koy naan am doom kii naan ko indi doom am doom indi gis nga njaay njaayloo bi ma ko njëkkee wax si xaw naa xam. Mm-hmm. te jigéen ñi ñu leen di ko def. dëgg la ak di dem ñu leen di sang. ñu ngi leen di def la na nga xamante ne summeekul ma sang la. Mm-hmm. loolu yëpp ci ay xeetu yu leen def dinañ leen ëmbal duñ ko wax. xale yi laaj ma lan. ñi ci amul jëkk ñu leen di violé dëgg la xale yu ndaw yi ñeme sëriñ yi ñoom ñëpp ñi nga xamante ne ñooy bu xaaba yi de yore xam-xam yu ñuul yi violé nañ leen xale yëpp la ñu mm-hmm. violé taa dëgg xam nga da nga ne woon maa ko gis bët lay laaj waaw xam nga ndoy baan léeg-léeg daf may tere may wax mbir mi dëggantaan fi mu xewe mm. mais fii ci géejawaay mm. am na sëriñ bu fi bu xaaba bu fi sañcoon hmm. xale bu ndaw hmm. yor këram hmm. chaque jour ñu rendi fam xar xam nga lu mu def mujj gi dafa dajale ay ponkale xale yu góoram ñu nekk ci biir kër gi ku ñëw jeeg pour sa affaire sëy wala leneen danaan la faaw nga ànd ak góor ba pare ndax ci loolu cay jóge ca laay jël pour defal la ci li ma la ci defal la leen di naxe xale yu góor yi di faral xale yu góor yi ñoom mujj gi seenum xëy lañ ko def ndax jongo ma ju jekk day ñëw nga am ko gratuitement te doo ñàkk dara soo paree añ ci xar mi loolu loolu yomb na dafay yomb loolu yomb mais loolu yëpp xam nga lan moo koy indi mhm. jouer ci sa mental. miin ko mhm. ñàkk gëm yàlla. Mhm. ñàkk xalaat ni yow ci sa aptitude gis nga euh, mami. Mhm. suñu borom bi su ne nit mooy sama kuutaay ci su loolu dafa rëy. dafa rëy ñàkk gëm suñu borom bi ñàkk gëm sa bopp ñàkk gëm sa capacité. ñàkk xam ne ne biir ba ba dara nekkul ba nga xamante ne nekk que liquide la woon suñu borom bee fa def mu ne kun. dëgg la nga toog léegi nii nga xam ne suñu borom bi moo ne kun. nga judd suñu borom bi moo naan kun nga dem. la ca nekk ci diggante bi suñu borom la nag Sénégal lii la ñuy dund di ci yàq. dégg nga oustaz Ndiaga Seck nee na dafa am nu mu ko tuddee. bu bu leer be bu bu bu. jëlee jëlee ko ci ligne bi nga ñëw ci bu ñuul bi. salaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaw sëñ bi noo def. waaw ñu ngi seer bu baax sëñ bi. noo tudd fooy woote. waaw man nag xam naa damay leb tur bi tey. Mm-hmm. waaw maa ngi leen di seetaan ni en direct tamit. Mm-hmm. maa ngi dëkk buñ naan Touba Monaco. Mm-hmm. macha allah macha waaw man de tey dama leen indil xibaar bu xaw a doy waar. ndax euh, dafa am suma benn mbokk bu doon liggéey télévision euh, SONES mhm. waaw léegi bu mu fa nekkee di liggéey di liggéey di liggéey ba benn jamono mhm. ndekete am na post boo xamante ne yor na ko am na ku ko soxla lool mhm. waaw ci noonu mu koy liggéey di liggéey di liggéey di liggéey di def ay affaire di def ay affaire di def ay affaire ba benn jamono ci kàttanu sunu borom waa ji mujjee wàcc liggéey biñ ko jëlee di yóbbu armeel ya mm-hmm. bi ñu ñaanalee ba noonu ba koy dugal ci biir bàmmeel bi mm-hmm. benn waaye jékki-jékki ne bërët ne ko nangam naa sa ndey non ci biir armeel yi ci armeel yi loolu mu doon loo xamante ne lu waar lu jàpp loolu ci Sénégal fii ci biir réew mi Sénégal googu Sénégal loolu ñëwaguma sax lu jegewu waaw léegi nu mujje kan lañ saaga néew bi loolu kay sawaay boobu bett na jaam ñi ba nga xamante ne nit ñi mënatuñu woon comprendre. Mhm. Mhm. ah dégguma de. dafa dafa am benn waaye bu doon liggéey ci. benn société bu mag mhm. société nationale yi ndox bi mhm. waaw mu fay liggéey mhm. di liggéey di dox di muy affaire bi di dox di dox ba yàgg waa ji faatu bi faatoo bu ñu gàddu ko doon xëccoo place bi ak keneen bu ñu ko yóbboo armée ba di ko suul di ko yoor kenn ci ni nekk ci armée yi ni ko nangamtaan naa sax néew bala néew bala saaga ndax booba tayatu ko. booba nag gis nga ne maanaam maanaam daf ko waxoon daal ne xeex bi daal gañe naa ko. booba nit ña fa nekkoon a baax rek. dañ ko waroon a boole. néew bi suul foofu. Mhm. mu jeex gis nga taa de gën. Mm. yëfi mag la fi mag ñi baawoon ñu bari dañ koo baax. Mhm. gis nga jigéen xale yi jigéen yi ngay gis ci dëkk bi mm. ñuy dem ak a ñëw mm. ñu jekk ba dee nit ñu di ci wax mm. ñu ci bari seen yaay yi wala seen papa yi dañ leen di protéger da ngay gis am gone bu jigéen am jëkkër ñu war koo jébale nga dégg ñu naan poto meew ba ba ne nañ poto meew ba te loolu dëgg la mm-hmm. da nga daan jël sa doom jël potu meew mm-hmm. naan meew mi bënn ko bënn mm-hmm. bënn benn bënn paaka rek ci digg bi comme niñ ci daan suru xale xaalis noonu jël ay turam turu yaayam turu papaam date de naissance yëpp xaatim ko dugal ko ci tëj ko dëpp ko dañ ko fenn. góor du ko mën a góor du ko tiim. Mm-hmm. jigéen ñi dañ ko mm-hmm. maire yi dañ ko daan def seen mm-hmm. doom yi ba léegi mi ngi am am na fas yoo xam ne soo ko takkalee sa doom góor du ko du ko tiim yooyu sax protection la protection la yooyu protection yi waxu nga def sa nga def la def doomi jàmbur nga gis maire ñaari nit yu wujjante ndaw sa sa ñaari ñaari xale yi jigéen ñi ñoo bokk bàyyi mm. seen yaay yi di wujjante kenn ki njëkk say kenn ki mm. am jëkkër ju am teraanga mm. wujj wa mer dem ca sëriñ ba def ko loo bu xaaba ba def ko loo xam ne su demee day xëpp deret rek mm-hmm. day xëpp rek <laughs> eh. te la am na am na benn eh, affaire gis naa ko ci année mais ba xaw a dee ah, gis nga atub la bu muy xëpp deret xëpp deret parce que sa wujj yaay moo la koy def ngay gis ni jigéen ñi nga dëkk ji mënu ko doo ci mën dara te du dara am na xale yi jigéen yi nga xam ne duñu bon yàlla defa def ñu am ay accident euh, kii euh, erreur de jeunesse mm-hmm. ba nekkatuñu jànq mm-hmm. ñu am jëkkër jaaxle di dem ci hôpital ñu leen di defal ay affaire ñu wuti ay ay dem ci yéen yi ñu leen di def ay mm-hmm. am na ay fas yoo xam ne soo ko takkee soo ko takkee sa waa ji su ñëwee da la koy def normal gars yi ñu koy liggéey ci dëkk bi di ko jaay xaalis bu bare bare bare maanaam dégguma la dañ lay jël defal la fas boo sa borom kër yow ko jigéen mm. yaay defar fas boo xam ni yow xam na ni doo xam nga ni doo jànq waaw nga dem gars yi defal la fas boo xam ni soo borom kër su la tiimee day mel ni yow soo xam góor da lay jë da lay da lay normal xam nga xam nga gars yi loolu loolu loolu ay expérience yoo xam ne bi nga ma waxee noonu mm. démb ci loolu laa nekkoon di ko dox mm. démb toute la journée man ko léegi mun mu mu woo ay nit ay xale yi jigéen bopp boppam woo leen mm-hmm. confirmeel ma loolu mais xam nga. Euh, euh, xam-xam bu ci xam bu ñuul la nag. waa enquêteur. waaw enquêteur enquêteur daal euh, man yii yëpp la ñu ñu fi génnee tey. Mhm. li ma gën a naqadi mooy benn ñi nga xamante ne ne que dañ leen di nu ñu koy waxee fasala ba pare doo dem. Mhm. parce que dama ci gis ay drame man. waaw waaw fasala dama ci gis ay drame la. xam nga ay vingt ans nga xam ne balaa ñuy def nii ci rajo lañ dëkkee woon doon def confidence. Mhm. da ngay gis femme yoo xam ne ba pare. xam nga euh, euh, ki nga mais nag kaay wax la. Mm-hmm. koo xamante ne dem na bay sukuraat. Mm-hmm. oo ñëw ba kii ne baal ma ak waaw ko loo def mu ne la ne man maa def ne nekk nga am douze jëkkër mhm. bu ci nekk day sëy mais loolu man tamit am naa envie laaj islamal gi ñoom oustaz Pape An ak lu ci diina wax waaw ndax tamit nag am nga conscience su ne baalu ma la parce que nit ki su amee possibilité wax <laughs> baal ma mhm. ci lay ah déedéet duñ développé miyaa neen ñu tàggoo ah, nañ bàyyi ba suba miyaa mhm. ñu tàggoo tàggoo parce que départ naa man mi sax maa ngi doon dem. <laughs> yaa ngi doon dem ah. waaw mais dañ koy denc ba suba incha allah. Ah, di di tàgguwaat waa Sénégal gépp di leen wax ne nañ ñu balaa xëy na wax ji dina am <coughs> pardon nag dama soj. Mm. dina am ñenn ñoo xam ne dina leen déranger. Mm. mais nañu xam ne rek lépp lu ñu fiy wax. Mm. pour bëgguñu moytu. bëgg ñu sàmmuwaat. ndax ndoy baan sama maam nee na mall mall joo gis ju nekk te taw bu dul sewet ñebb ñebb da cay doy taa déggen di nuyu nag euh, sama xarit yëpp ndax nag dëkk bi fi mu toll nii kat taa déggen mën naa ne li may toog ci sa wet tax na ñëpp ma bëgg macha allah démb dama dugg HLM xale yi dañu am jom xale yu ndaw sa ay doom lañ dañuy waxtaan ci yow may ree nee nañ ñoom ñooy xale xaalis xale carte gab xaw ma HLM ruqu nday ami sama doom jooju di ko nuyu moog yaay ajaratu sooda sall di wax ba subaak jàmm kontaan nañu kontaan nañu macha allah. waaw te daan ngeen ni ñuy tàggoo rek. Mm. Euh, thème bi soo gisee ñu nekk ci di ci bu baax baax rek. Mm. Mm. ay yu ñuy def toog ak ay borom xam-xam. ñu wax ñu lii. du question ñun ay buxaaba lañu wala leneen. mais dañoo def ay gëstu. parce que suñu demee ci beneen thème ngeen xam ni. mbir mi ay la laaj. waaw ñu leen di tàggu ba suba ak. du ñu buxaaba te defuñu promotion buxaaba. defuñu promotion buxaaba <laughs> waaye nag. Euh, mbir mi dinañ dem ca ña ña nga xam ne ñooy liggéey mbir ma ñu toog ñu wax ñu ñu noté jàng def ci ay gëstu yu ba parce que liggéey bi loolu la laaj dëgg la di nuyu colonel bu baax a baax ak kii man Jumi Ndour euh, Ndiémi Lay Sarr ñoom ña nga fële ca États-Unis d'Amérique sama ba ca Allemagne bi ah, rek ah, waaw waaw Aminata Tall soxna Aminata Tall ak keneen ki ah, madame Mbaye madame Mbaye aji Maguette Dieng nekk ca Brooklyn ah ca ca New York jamono ji mu fi waaw yaay yaayu Xadi yaayu Xadi ñu ngi <laughs> leen di ak Aïssatou uh-huh. doomu ndeyam boobu ziar bu baax a baax di ziar tamit eh, kilifa diine kilifa aada yi El Hadj Moustapha Cissé bu Pire. macha allah ñu ngi koy ziar ko yàlla yàggal. sunu kanam di leen dox mhm. euh, rek ne su wareef jeexee léegi léegi 13h di ngeen am xibaar yi. Mhm. ba rek ci télévision Futur Média seetu askan wi 16h maanaam 4h ci ngoon di ngeen am seetu bi ak per ak doyen. Mhm. mi nga xam ne fental na ma wéy loolu beneen affaire la. ah di ngeen am 19h30 bloc d'information. Mhm. de 19h30 à 20h30 macha allah macha allah 20h45 faram fàccee dina ñëw. Mhm. ah 23h. ci kàttanu yàlla di ngeen am rediffusion rétrobeuse mhm. Aïssatou Diop Fall dalal ci salaam Diallo ak Mame Goor Diazaka flash info beneen flash info en direct di ngeen ko am à zéro heure mhm. waaye tamit par paafiri gént léegi moom xam nga oustaz Abdou Karim Ba événement bu rëy boobu muy Paris le 12 mhm. avril nga xam ne ñëpp a cay ànd foofu te tëngeej dina ñëw ci kàttanu yàlla zéro heure quinze maanaam minuit et quart léegi képp koo xam ne yaa ngi bitim réew la ci réew mi am sa gént xamal ni minuit et quart na nga ko paafiri gént en direct Euh, ci euh, euh, télévision Futur Média 2 heures du matin nag di ngeen am rediffusion wareef thème bi sur le maraboutage 2 heures du matin di ngeen ko am ci kàttanu yàlla ah xanaa rek delluwaat.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 Fatima Sow waaye nag il faut ma wax ne brocard nag la ma jiitalal brocard waaw brocard la jiital dégg nga waa nañu xam loolu kon nag fa tubaakàlla macha allah à demain ci beneen émission wareef ci kàttanu yàlla ak professeur Massamba Gueye bu Sorano a demain incha allah